رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi nuyu bokk jullit yëpp beral am nuyoo bokk taalibe murid yi di sant suñu borom di julli cant bi alayhi salaatu wasalaam waaye di sataat bu baax Seexul Xadiim yi nga xam ne moo suñu kilifa tey jii nag di juróomi fan ci weeru rakki gàmmu waaye fanweeri fan benn ci weeru octobre 2022 daaree kaamil bu Touba ñuy jàng fii ci biir jumaa ji Dakar barabu sëriñ bi ñoo doxe woon ay jéegoy siyaara jëm ci kilifa gi fi Seexul Xadim teg muy Seex Maamadu Muntaxa kilifa yépp jugoon mboole mboolem ñu ñu ñu ñu làmboo daara ñëpp rek dem siyaare ji ko di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom bàyyi gën ko fee bàyyi yokk ak wéram yokk ay ndamam te lépp ñu ànd koog moom siyaare bi nag li ko taxoon a jóg moom ñu xam ne ci yoonu murit ndax day suñu kilifa mate ko lool ah, waaye nag teg ñu fii di ñu liggéeyloo liggéey bu ko bu ko ñor lool tam nga xam da ko fee fekk sëriñ bi. sampaloon ko boppam ci nekkam amam daara ji ñaar fukki at ak ñett wala ñeent moom moom sëriñ bi am fekk daara ji ñaar fukki ak ñeent soo ko ñibbisi fii ci ñibbiseem gi ci Touba boobu ak ko fi wuutu di ko saytul seen bopp am Cheikh Mamadou Moustapha ba ci sëñ Muntaxa mii lépp na seen loxo képp ku ci dugg ñoo ko ci dugal lu ci war a soppi ko ñoo koy soppi ñoo koy taxaw seen bopp ci anam yëpp ñu ko seen mi doon defee muy liggéey bu màgg boo xam ne nag moom la sëñ bi jiitu ci mboolem ay liggéeyam ndax alxuraan li ci waxal boppam ci ay anam yu bëree bëri yu wuute ñëpp dégg nañ ko ndax waxee ne moo di toolam abati ko ne mooy mooy mooy jumtukaayam kon loolu moom la soo mooy léppam ci xasidaam yi nga xam ne yëpp ci lañu sàkkoo jegee sëriñ bi ci alxuraan ji da ko balluloo mu nag xaasi boppam joo xam ne nii mu ci am mosu ñoo dégg benn wàllu yu yàlla wala nit ku baax nit ku baax ko am ci kaw suuf mooy dëkk ak moom ni mu dëkkee moom di ko dundalee ni mu ko dundalee teg ko ci wetam ah, ñu ko ko jàngal bi yàlla sàkk ñeenti yoon ñaari yoon ci suba gi benn si tisbaar benn ci takkusaan mu sax dàkk boobu mu ko sampee ak tey ci 1902 1904 ak tey ci gànnaar bari mu ñooy Jolof ak Njaaréem ak Tuubaa gi mësta ñàkk am benn bis ak lu mën a am loolee dana am muy ñeenti kaamil yu am bis bi yàlla sàkk juróom-ñaari fan yu ne di ñaar ko juróom-ñett loolu nag mbirum boppam la mu booy itam ah, ñu koy xan moo am bindu boppam moo xam ni euh, ci xasida mi da bokk waaye ñaan ñoo ci def yëpp ñëpp xam ko te jubluwaayam ba lañ ca mën a xam lépp daal mooy jullit yëpp rek la bëgg moo doon lii doon seen doon loo xam ne képp ko am lu ko jaaxal man cee xeetli ko képp ko am lu maa ngi ko cee maa ngi ko cee amee na ko bëggee moo doon njariñu jullit yëpp loolu la ko sampee ak leneen loo xam ne nag moo diggantam borom ñoo ko xam ñooñu mu ci liggéeyloo nag ah, ay ay ay ay kuréel yu bari jaar na fi ndax dafa yàgg ci maam yaag maamaat la woon ba yàlla tey def tey jii nun ñi nekkandi fi ah, yor liggéey bi ak kilifa yi ne suñu kanam ah, muy liggéey boo xam ni ma ko waxee moo gën a moo si si boolem liggéey yëpp si mu taxaw wax nañu ko léegi ñooñu nag ñoo amoon yëg yëgub jug dem ci sëriñ bi ngir mu yeesalal leen ñu ngi koy defalee murid yépp yeesalaat ndigal li yeesalaat soññe yi waxaat ñu ne na ko bëggee donte luñ miin la lool fekk ko fi di ca dox waaye muy saatal ñu ko ndax ndigal ñëpp xam ne li mu doon ci ab murit loolu nag alhamdulilah am nañ ko nañ ko bëggee woon am nañ sax ñoo xam ne raw na suñu jort bi ko sàkkoo ci moom tam dañ ko nangul nangul nangul mu rafet wax ne nañ ko fekk ci këram añ si ak moom baat yooyu moo ko jëfandikoo ne dañoo waaye bu ñu añ si ak moom ci ci bëccëg gi noonu tam lañ ko defee bañ demee tam dal nañu dal ba gën a rafet wax wax na kilifa yi wax nañ kàddu yi ñu war a wax ak moom moom tam son la boppam la mu bëgg a lépp wax na ko te ñëpp dañ ko dégg moo ci noppee itam def na teraanga yam war a def yëpp yam ñu bëggul defal yëpp defal na ko ci foofee ci këram ñu xewlu ci baax a baax a baax li si fii ci liggéey bi kon nag loolu nag mooy li amoon tey ah, ñu bëggoon ko jottali bëgg jullit yëpp jot ci waaye murit yëpp jot ci ah, ñu gën a maase ñëpp rek ci ñaan la si sëriñ bi mu yàgg fi lu ci wér te bari ndam lool waaye tam liggéey bi ñu sàkk ñëpp ñu ci ñaanal ñu ci ne nekk ci murit yëpp nañ ci gën a ñaanal ñu koy man waxtu wu ne di amug wér di amug man di amug di di di ko di ko bëgg di ko defee ni ko sëñ bi ndax li ci sëñ bi fàggul jullit yëpp ah, tax na mu mu si loolu ci am solo kon ginnaaw ñoo fi nekkal ñëpp nag kon loolu moom nañ ñëpp ñaanal rek ñu koy man di ko def ni ko sëñ bi bëggee bañ am ci làkk ay ngërëm moom ñun ñëpp xam naa kon maa ngi gàttal foofu ci war wax lépp day xaw a du ci xaj waaye ñoo ngi sant baax tey gërëm te ñaan suñu borom siyaar boobu defaat ko ay yoone yoone yoon ci kanamu bi lañ ciy wut lépp ci ay ngërëm ñu ko ci defal barkat bi sallallahu alayhi wa sallam barkat karim ak seen xadim radiyallahu anhu aleykum salaam wa rahmatullah وما طلعت شمس وما قال منصف سليمان واتركي عنك ما سلف وما طلعت شمس وما قال منسد سليما واتركي عنك ما سلف سلام من ابراهيم دوم يقول كما لاح النجم السماء وذا المسك والروض المفتق لونه seen dëkkuwaay seen waliyun waliyun maa lahu xayra rabbihi mu ne booba ليس ولا إلا الكتاب الرفيع رب رب مرشد كل طالب طبيب طبيب للصدوق صديق فسيح نزيه بحر علم وحكمة مجيد مجيد للعباد شفو كريم كريم فاق حسنا وبهجة يقود إلى نهج الهدى ويسوق وأضحى قطيب العصر الحمد لله ñi sant suñu borom bu baax a baax mi ñu booleeg sëriñ bi di gën a sant mu ne xam na taxawaay bu baax a baax mu ne mu ne yéen xam ngeen li ngeen bëgg yéen mu ne lu ngeen ko xam-xam suñu borom moo leen ko gën xam mu ne kon ci barke sëriñ bi mu ne na leen defal li ngeen bëgg tey ëllëg bii ak biti mu ne ñu ngi koy ñaan ci barkeb sëriñ bi ci mbaaxam ci darajaam jërë ngeen jëf tubarkàlla tubarkàlla mu ne doyadi doomu aadama mu ne waaye bu sañoon ñoo koy ànd biir ak biti jërëjëf mu ne mooy suñu bëgg mooy suñu yitte mu ne ndax liggéey sëriñ bi rek mooy suñu yitte te yéen yéen a ci jiitu kon jërë ngeen jëf mu ne mii gën a fas yéene feddal ay laxasaayam rek fas yéene ko ànd ak yéen taxaw ci liggéeyub sëriñ bi mu ne bëgguñu dara yittewuñu dara lu dul seen yitte rek mu ne loolu mooy yitteem. na ñëpp tàllal seen loxo bismillah فتى مدحه أعياق وكل مفلق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 يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنافث والحاء والعائن والعائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيك